baatu askan wi li ci yéen a kaay Walf Quotidien xëy duñu dégtal gouvernement bu bees goo xamante ne eh, lu bees tax la ci nguuruk eh, Bassirou Diomaye fay gouvernement bi ñu ngi koy togg ci jamono ji na muy demee ak nañ ci fas yéene doxale Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ana fu ñu war a tàmbale doon laaj bu sample ci Walf Quotidien waaye ay analyste politique gis nañ ne googu le gouvernement fa mu am ay technocrate fa mu fa mu am ñoo xamante ne ay borom xam-xam lañu yéen a kaay bi xëy ko leeralal ci njëkk moom eh, quotidien yor yor bi di ñu dégtal Bassirou Diomaye Faye juróomeelu président bu Sénégal yéen a cabinet prison la jógee dugg palais yéen a kabaang ñu fàttali ne fukki fan ak ñeenti ceeru avril 2023 euh, ca lañ ko tegoon loxo ci jamono koor euh, fukki fan ak ñeenti ceeru avril euh, ceeru mars 2024 new ne ci weeru koor ñu teggi ko loxo may ko afiya mu jóge ca prison ba dugg palais yéen a kabi moo ñu ko yëggee ci xatam bu njëkk digganteeg Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay diggante gu yàgg la te ñoom ñaar daanaka bokk na ci ñi jëmmal projet eh, Pastef yéen kabi di la mandaane eh, Sénégal fal na président bu bees di Bassirou Diomaye fay waaye nag président la gu bari bor ndax eh, toll na jege na lu toll ci téeméeri million ci wàllu bor noonu la ko yéen kabi di la mandat fësale mu ngi ñuy dégtali tamit ñi nga xamante ne ñooy candidat yi am ndam ci le wote naka la ñu jàngatee yi yéen kabi di Quotidien mu ñuy dégtal mbéy nees mun a def ba Sénégal mun a am bay dundee loole nag njiitu réew ma woon maître Abdoulaye Wade def cee laaj njiitu réew mi Macky Sall def cee laaj ndax Bassirou Diomaye fay dina ci wut pexe ba saafara mun cee am laaj dagu samp ci jamono ji ndax dina ci indi lu yees yéen kaabi vingt 24 heures mu ngi ñu dégtal njurée fii tukkee gum ci élection présidentielle yi Bassirou Diomaye fay gàddu na lépp bu doonoon uh, tool mu ne góob na lépp uh, Benno Bokk Yaakaar ak taxawu nag ñoom ñoo jël ñetteelu place bi mu ngi ci yéen kaabi xëtam bu njëkk yéen kaay di Source A mu ngi ñuy dégtal eh, lu aju ci eh, mode fast track ga xaar ci Bassirou Diomaye fay mu gaaw a taxawal gouvernement am eh, ci nguuram yéen cabinet Issa Sall di analyste politique jànge ci ne Ousmane Sonko na bàyyi Bassirou Diomaye fay mu doxal ndax moom la ñu fal njiitu réew mu ngi ci yéen kaay bi di Source A yéen kaay bi di mu ngi ñuy dégtal lu aju ci alternance gi ñu ne am na fi bokk na ci njiitu réew Macky Sall dafa mujjee lajj ci calcul nationale euh, Mamadou Mame Diop euh, njiital assemblée nationale euh, du mujjee dugg ca as ca pale ba ngir xaarandi élection élection mujjee nañ ko am Bassirou Diomaye fay moom daanaka wutu na njiitu réew Macky Sall ca pale Ba moom ci kujje politique bi la dem fekki ji yéen cabinet d'évidence moo ñu ko yëggee turbine mu ngi ñuy dégtal njiitu réew mi Macky Sall mi ñu ne defa war waa APR dooleel Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ci Omar Sow di conseil foofee ci wetu njiitu réew mi euh, Macky Sall moo ko wax ne njiitu réew mi Sonko ak Diomaye la dooleel euh, sànq euh, candidat bu benno mu ngi ci yéen a bi nga xamante mooy turbin lu aju itamit wàllu assemblée nationale fuñ ci toll yéen bi moo ñu ko dégtal enquête mu ngi ñuy enquêtal defetu coalition benno bokk yaakaar li sooke benno daanaka nermelu ci la wota yéen a bi ne ñàkk a déggoo ñoom ak itamit tegante ndeg sërëx ya ñoom ba tax na itam tamit benno wuyoowul turam ba tax na amuñu euh, ku falu njiitu réew Euh, ci googule coalition ci élection présidentielle yi ñu euh, jógee yéen kaabi di réew mi quotidien mu ngi ñu dégtal lu aju ci pacte de Paris euh, fa la njiitu réew mi Macky Sall war a akki ji ba tax na jéego gu njëkk ci diggante Emmanuel Macron njiitu réew Macky Sall ak njiitu réewum Sénégal gu bees di Bassirou Diomaye Faye yéen kaabi di Le Soleil ne njiitu réew Macky Sall bu joxe lënge yi ñaari fan ci weeru avril ñett ba ñeent fan ya mu fas yéene wutali nag euh, ndombal tànk bu bees ga mu am di euh, pacte de Paris euh, pour les peuples et la planète kuréel googe nag la fas yéene jiite ji bees moom jiitu réew mi Macky Sall mu ngi ci yéene kabi di le soleil yéene kabi di stade mu ngi ñu dégtal gaynde yi daanaka dalal gum nañu xel yi laata ñu dem ci weeru juin war a soobu ci éliminatoire euh, Coupe d'Afrique yi ñu jëm Sénégal Bénin match xaritoo ga jeex na euh, Sénégal ko dan benn bal ci euh, dara Sadio Mané mo dugal bii ba